autographe. Thank you. parloo rek parloo rek. sa loxo rek. Thank you.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

avoir une pensée pour tous ceux qui l'ont célébré avant, avec nous l'année dernière et qui ne sont plus de ce monde. Et prier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur réserve clémence et miséricorde et les accueille dans son paradis le plus élevé.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

le président de la république euh, daaneel noonu ay euh, kàddoom ñoo ko déggando donc euh, ginnaaw jullik tabaski bi donc mu njëkk wax ci waxam nag mu ko axé ci ñetti principe mooy solidarité obéissance aux lois yi demee